jërëjëf euh, maa ngi rafetlu déjà ndaje bi euh, parce que pour ñun lu am solo la ñu ñëw présider euh, ndaje bi nga xam ne assemblée générale ordinaire waa UNICEF ñoo ko organiser seen kuréel bi nga xam ne mooy mooy regrouper li li gën a am solo si ñi yëngu si wàllu wàllu exploitant forestier. Euh, donc euh, defe mooy sama ñetteel at maa ngi koy présider chaque année euh, pour ñun occasion bi ñu am rek pour aussi ñu waxtaan ak ñoom si orientation yi président de la république Macky Sall joxe si wàllu surtout aménagement wàllu exploitation illicite suñu forêt yi. donc pour ñun occasion bu rëy la bi ñu am parce que ay partenaires yu am solo la ñu ngi liggéey ñoom tamit xam nañu bu baax orientation yi dañu. ñaax nañ leen aussi ñu gën a impliqué wu euh, si euh, si si activité yi nga xam ne secteur service forestier ñu ngi koy def moo xam aménagement la wala moo xam mise en défense reboisement euh, wala sax si xeex lu mel ni daay ak trafic bi ma wax sànq trafic illicite de bois donc parce que nit soo amee sa outil doo doo waroo ko yàq ñoom nag seen outil bi fore bi la donc euh, foofu la ñu la ñu am seen sutura et donc ñun ñëpp am nañu euh, xam nañu donc ku am euh, sa sa sa kii waroo ko yàq donc loolu aussi leer na seen bopp donc ñu ngi gën a waxtaan di gën a lëkkaloo moo tax ñu ñëw présider seen rencontre. am ñu doon joxoon parfois ne Gambie daf ci dugal loxoom surtout si trafic illicite boobu yow si ngay. maire bu Kolda nan ngeen jàngee situation waaw gaa moom bon trafic illicite bi boo ko xoolee euh, si si si frontière bi lay lay gën a am euh, moo tax ñu ñu yaakaar nag ñun dañu war a gën a góor góorlu si si surveiller suñu ressource yi loolu aussi responsabilité suñu responsabilité la ñu ngi koy doxal euh, chef de l'État Macky Sall daaw euh, permettre nañ ñu recruter ay ay ay ay ay ay agent forestier donc jox nañu ay moyen yu tax pour ñu gën a euh, surveiller suñu forêt bi ñun ak waa force waa waa armée douane donc force de sécurité défense yëpp daanaka ñun ñëpp ñoo mobiliser wu pour xeex loolu donc gouvernement bi du du du du du noppalu tant que loolu jeexul euh, mais aussi euh, donc euh, ñun duñu duñu xaar lu xew Gambie wala mais loolu li ma wax sànq suñu responsabilité la sur le plan intérieur donc dañ koy dañ koy gérer. ñu ngeen dalalee ñuy bàyyeekoo ko ñëw seen dëkk yi. waaw donc xam ngeen ne Sénégal Gambie même famille yi la euh, donc euh, ku nekk Gambie am na mbokk Sénégal ku dëkk Sénégal certainement am na mbokk Gambie donc euh, ñu ngi leen di dalal ñu bëri ñiy ñëw dañu am mbokk fii xam nañu aussi mun nañu am fi jàmm moo tax ñu traversé frontière bi mais aussi ñeneen ñi ñi nga xam ne tiit nañu aussi ñëw nañu mais Sénégal xam nañu réew réew teranga la. Euh, ñu ngi leen di dalal ba suñu doole yam mais gouvernement bi xam na bu baax situation bi mu ngi koy suivre euh, su su jaree yël jël yeneen matukaay gouvernement bi dina ko jël au bon moment. sixième assemblée générale am euh, waxtaan ci te thème bi li ci ëpp solo mooy programme yenn d'aménagement bi nga xamante ne service forestier mu ngi koy def lu baax la ndax tax na ñu xam suñu àll lan la àttan ak lan la àttanut lu baax la parce que permettre nañu encore une fois. ñu mën a xool li nga xamante ne war nañ koo def ak waruñu ko def waaye dañuy jàpp ne fii mbir mi toll ginnaaw bi ñu xoolee euh, les les forces war nañu xool aussi les faiblesses moo tax ñu demande les services ñu gën a xoolaat le programme enfin que acteurs yu nekk mun a jël seeni responsabilité mais ce qui est sûr et certain programme boobu jàpp nañu ne bu ñu ko xoolee xoolaat ko njariñ li Sénégal gépp a koy gis. Euh, li xew Gambie. li moom ku ne gis na ne sunu frontière bi ñu ngi koy agressé. ndax lu ñu am ci àll ci boor boobu la nekk waaye kon nag yàlla defal nañu yàlla dimbale nañu ba situation bi fa xew sénégalais bu ci nekk war na ci def taxaw seetlu soutenir suñuy autorité ba problème bi am au niveau de la forêt problème bii am Gambie ñu mun ko ci jeexal une bon fois pour toutes ndax ñun ku subirul les événements yi nga xamante ne am na foofu forêt bi moom subir na ko te loolu dañ ko war a jeexal ci lii moo tax ñu ñaan ñëpp nekk derrière nos autorités enfin quand même que situation boobu ñu jeexal ko.